jërë ngeen jëf honorable député Seydina Fall coow ak mbambali ko topp ba léegi bàyyeegu ko l'observateur mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw convocation gi ko gendarme yu section recherche convoqué woon keroog ajjuma mu njuuy leen ay jege ñaalem nee nañu tey jii dana wuy yi li tere woon na dem keroog ajjuma wuy nag moo di dafa feebaroon ba entré woon ci benn clinique bu nekk ci dëkk bi hyperglycémie la amee woon ci li ñu wax li ñu koy tuumal moom député Seydina Fall Bougazeli di trafic faux billets enquête dina kay mi moo procédure pénale bi wax am na ñu ne gis nañu ko Touba keroog samedi moom Bougazeli libération nañu loolu amul Bougazeli demul fenn génnul ndakaaru gi te ak lu mën di xew tey jii fu mu jaar dana wuy ji gendarmerie suur soit nañu dina dem ginnaaw bu mu faussé convocation bu keroog bi tey jii ca lay wuy ji l'observateur jëlaat kàddu gi wax ñu ne ñeneen ñi ñuy tudd ci yëf yi mu di rappeur bii di Gestia ak compagnie seen ab garde à vue ca gendarmerie jeex na tey jii ci leen di defeere fa ñu jëm di ca kanamu àttekat ba ki fa jaar ba jàll di Hissène Habré ay mbiram mi ngi ci yéene kaay ñu xëyandool ubbil la tribune soxnaam di Fatim Raymond Abré moo fa xëy di wax li jëkkëram Hissène Abré di dund ca kasob Cap ba ñu ko tëj ñu gisaat ko ci Vox Populi moom Fatim Raymond Abré mu fay xam la ne keroog samedi bi trois heures du matin di waaj a jot ci la ko Hissène Abré woo téléphone ne ko daa amoon ay vertige miir daanu ci duus bi ba loxom dammu Fatim Raymond Abré ne te loolee umpul kilifa yu kaso bi li ñuy bañ moo di hospitalisé ko mbiri di siiw mbira ngi moom yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko siiwal benn ci Sud Quotidien mi ñu xëy daan yore te tubaab yi téye woon ko delloosi nañu jaasi ji ci réew mi premier ministre bu réewum France di Édouard Philippe moo ko indi yëkkati ko teg ko ci loxoy président Macky Sall bu nuppi tegal ko ci ne jaasi ji mooy place am premier ministre bu France mu gàddu jaasi di ko jébbal président Macky Sall photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk soleil national yéenekaay bi nañu démb la woon ca palais de la république journal bi nañu ginnaaw jaasi ji bi nee nañu am na juróomi téeméeri téere ak fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne El Hadj Omar moo ko bind nañu leen ko jox jox leen kàdduy président Macky Sall yi ci journal Le Quotidien mboolem ndaje mu doon def keroog samedi ci cadre yi nekk ci biir partem bii di APR mu di waa convergence des cadres républicains fa la leen waxee ñu joxante loxo àndandoo liggéey ndax dinañu toll jamono joo xam ne duñu ko gisati journal bi nañu ndax kàdduy Macky Sall yooyee du tontu lu muy indi ci waxi troisième mandat bi ñuy jaabaa jonge ci réew mi la Sénégal nañu ca ndaje moomee mu séqoon a cadre yu partem bi wax na ci calte gi am ci réew mi ñàkku ger gi fi am ak bàyyiloo ko gi l'observateur nañu yamul foofee ak ñoom wax na leen nit duñu fi gàddooti mukk ay bor ngir di ci dundal ay fonctionnaire ak i bor bu ñu fi lebati fa ñu koy dugal mooy ci luy doxal réew mi réewum Sénégal waneti na boppam ci wàllu football ubbil record yéene kay journal bi mi ngi ñuy xamal ne ci lu jëm ci segg gi ñuy segg réew yi war a dem ci Coupe d'Afrique Cameroun 2021 mu di qualification CAN bi Sénégal fekki na démb Eswatini dóor ko ñeenti bal ci benn journal bi nañu Famara Diédhiou moo dugal ñetti bit ya Pape Alioune Ndiaye dugal benn ba gaynde yi dëggal seen bopp wane na ñooy buur ca Eswatini stade yéene kay nañu léegi nag ñoom gonay Aliou Cissé yi di gaynde ndam li ñu am démb tax na ñoo jiitu ci seen groupe ñoo yaataayu mbéy ci bopp groupe i bi ñu bokk Famara Diédhiou mi dugal démb ñetti bit ci juróom-ñeenti minutes stade yi ne kay nañu bi ko Sénégal gëj def ak léegi mat na juróom-ñeenti yet Papis Demba Cissé moo ko fi mujjee def